asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu allahuma anfani bima allamtani wa allimni ma yanfauni wa zidni ilma mbokk Sénégal yi nuyu naa leen di leen siyaar di leen ñaanal jàmm euh, seen mbokk la Medoune Diop wa Tawaasaw bil euh, di sàkku ngeen partage ñu live bi mu yaatu incha allah waa dafa am yu ñuy dégg fan yi ci journalu Sénégal yi ci seen wax yi mbokk sénégalais yi ndaw ñi nu ngeen am fulla am fayda incha allah te xam ni yàlla defal nañu benn bunt boo xamante ni si mooy li doon jooy lu baree bari pour ñi nga xam ni yaakaar nañ ni bu leen yàlla tegee ci réew mi incha allah rabbi dinañ ñu defal luñ bëgg rawatina ci mbuumuk jaam gu dog ngir ñu moom suñu bopp ci wàllu liggéey lépp eh, ziar nañ la bu baax a baax Matar di la ñaanal jàmm yàlla na leen yàlla defal jàmm ngeen partagé mu yaatu waa ñuy dégg euh, sëñ Matar bu nu ñàkk fayda maanaam ñu ngi dégg journaliste yi euh, ñu ci bari di wax seeni wax di ko jëmale ci diggante Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay bu nu ñàkk fayda mbokk sénégalais yi bu nu ñàkk fayda xeex bi du xeexu Diomaye fay xeex bi du xeexu Ousmane Sonko xeex bi xeexu sénégalais yi la xeex la boo xam ne pour suñu njariñ ñun te dafa doy nag waa léegi ci fi may njëkk a ñëw mooy ñu ne dil jël jëmale ko ci Ousmane Sonko ak Macky Sall Ousmane Sonko yaakaar naa bu doon dil ak Macky Sall bu yàgg la koy def Ousmane Sonko bu doon kuy xaddi man sam bopp man mii wallaahi su ma nekkoon wallaahi tallaahi su fekkoon maa nekkoon palaasu Ousmane Sonko man comme Ousmane Sonko xeex bii nga xam mi ngi koy xeex ma nekk palaasam xaddi naa bàyyi naa ndax dama naan sénégalais yi jaruñu ko ñu lay tëj. di rey ay nit yu baree bari di am kenn génnut yu bëree bëri am yoo xam si kenn génnut bu doon man maay Ousmane Sonko laa Ousmane Sonko jàmbaar dëgg góor yàlla dëgg dëgg mooy Ousmane Sonko koo xam ne di xeex ngir yàlla di xeex loo xam ne wax dëgg yàlla lii su leen doyut mbokk sénégalais damaa xamatul ana lan moo leen di doy Ousmane Sonko lim ci def lépp lépp bu ngeen amul jërëjëfam bu ngeen amul ñaanal ko yàlla bu ngeen amul ñu fonk Ousmane Sonko bañ ko fàtte histoire am bañ a fayat ci àdduna wax dëgg yi Ousmane Sonko leen dara dara dara dara lii ñun ba ñuy déglu Sonko xam nañ ni Sonko xeexul pour président président man yàgg naa ko wax ci samay laaj ma ne leen Ousmane Sonko xeexul pour président président pour puusal ma toog pour pour naa nekk président far yàlla dogal loolu sax Ousmane Sonko sax daf ko pratiquer far. xeex xeex bi ba xeex bi tollu fii nekkul moo falu de jomaay fay la ne jomaay falul kon pour di wane ni moom dafa am lu muy xeex benn projet bu muy xeex dafa am benn principe bu muy xeex daf li muy xeex lii la muy réew mi defaru kon moom tegul boppam bu doon keneen la ak affaire bi nu mu mënta demee bu fekkonte ni boppam rek moo ko tax a jóg kon dafay dafa naan du ma lekk ci ndab waaye naa ci xëpp suuf ndax mom dafa am lu bëgg pour nek président mais li Ousmane Sonko war na leen xéxul pour man na nek président mais da doon xéx pour nañu and defal réew mi pour day am ñu jité ño xamni dina taw ñu mëna xéx combat kon Ousmane Sonko ana lan lay di ak Macky Sall la leen di laaj ku nu japp téré la dund xal la say njabot xal la sa life yu bëré bëré ngeen tok naan Ousmane Sonko fay diil ak Macky Sall légui mu am légui ci benn point bu may ñëw ak yeen c'est que ak ndaw deram mooy tàng deretam moy tang du bokk ak benn Ousmane Sonko même bu fekkente ni laax dafa toog ak Macky Sall ñoom ñaar ñu waxtaan arab dafa naan comme loo xam ni ñaari lor day ñëw ndax am na lor boo xamante ni sii bu ñëwee lor boobu dafay metti ñaata nit ñoo dee dee dafa doy stop ñaata nit ñooy génn ñu rey ay nit mais léegi Ousmane ko tey même bu demoon tey ba mën a waxtaan ak Macky Sall ñoom ñaar ñu toog ñu waxtaan ñu ne léegi kaay Macky Sall ne kaay leen léegi nanu arrêté affaire yi nanu kii affaire yi léegi mën ngeen toog dinañ leen jàppale ngeen toog. ah te deret kenn du dee dee yi dafa doy fi mu toll nii lan lan war a lijjanti ñi dee ba pare nan lan mën a def fi mu toll nii ba seral xolu seeni waajur ñi dee lan lan mën a def fi mu toll nii ba réew mi jëm kanam te ñi dee liñ doon xeex mooy projet bi lañ doon xeex te kuy xeex leen man mi de yàlla dogal na bokkuma ci ñu dee bokkuma ci ñu tëj mais xeex bii même ku bu ma ci dee woon ma tëj ci jarul sax ngeen di jël un euro di ko jox samay waa kër jarul ngeen jël benn centime di ndax yàlla moo tax ma koy moo tax ma koy def fayuk yàlla laa ci wut mais nit pour loolu ngeen ngi bàyyi ngeen bàyyi ci xel xeex bii pour ñun ñu gañe ko mooy xale yi li ñu bëggoon mooy ña tëdd ca suuf ñu tëdd sabar bar zàq yàlla na leen yàlla yërëm bu leen fàtte ci ay ñaan mais ñooñu lan mooy tey seen fierté seen mbir bu kontaan loo dëgg-dëgg mooy xeex bi ñu gañe ko muy ñu gañe ko ci lan muy réew mi nekk am ñu jub ñu fi toog muy réew mi ñu fi àtte yoon muy réew mi ñu nekk si jàmm muy réew mi ñuy lekk di naan muy réew mi ñuy dund xale yi li xeex objectif bi yëpp yëpp yëpp lool mais kon ana kon ana kon lan ngeen bëggati ba toog fii di ñu sonal ci ay dil ay Macky Sall Ousmane Sonko Ousmane Sonko Macky Sall ñun dañ leen dégluwut yéen ba leen ba ñuy soxla ak ndimbal yéen journaliste yu bëree bëri ba ñuy soxla ak ndimbal di soxla ay wax di soxla ku luy jàppale réseaux sociaux yi gàcce ma ñu mel ni ñun ñi nga xam ne dañuy toog. muy activiste yi nga am toog di dénoncer li nekk ci réew mi coowal Adji ba mu fi am ba koy wax ay fukki nit doo ngay toog fii naan Adji Sarr boo koy wax nit ñi sax du la déglu naan la dangay fen nan la waxoo dëgg Adji Sarr su moo Sonko moo kii Adji Sarr moo ko via loolu rek problème bu ngand la woon nit ñu toog di ko kii te yéen xamoon ngeen ni dara di ci dëgg yéen ñëpp ngeen aada ñëw di seedey fen kenn koo ku ñëw ku jàppale gone yi ci xeex bi ñu dem ba egg fii ngeen ñuy bëgg a tànqal ñun fi ñu toll nii xam nga ci liggéey lañ toll Sonko jomaay fu nu toll mooy ci liggéey mooy ci lan la def réew mi ci lan ndax yi dañoo am lu leen doy sëkk loo xam si lu ñuy lijjanti mais comme pas seen wax nga xamante ni si yéen a ngi nekk ñëw di sonal nit ñi di taqal di taqal nit ñi ñun de bëgguñu woon génn sax ndax yaakaar naa ne réew mi toll nañ foo xam xanaa génn waratul xanaa kay fi ñu toll nii kay ay fiiru liggéey kay lañuy wax bu leen ñu sonal te nag yi ma di leen xamal lenn gis ngeen xeexu système dama leen di wax lenn waxi mag laa leen di wax partagé leen sama laay mu yaatu waxuma leen waxi dof man lépp lu ma leen mës a wax billaahi wallaahi tallaahi ci barkeb shahru ramadan gii billaahi lazi laa ilaaha illa da ngeen ci teg seen bët lépp loo xam mës naa toog fi laay ko fi ba ba ci bu njëkk laa leen wax ci bu njëkk njëkk njëkk njëkk ba ñuy toog di wax bu ngeen waxee ma xool làmb ji ma gis affaire bi ni mu demee système bi ñoom Paa Xaadim Samb ñooñu ma ne leen làmb ji système la da ngay gis affaire bi sax ngay ñëw ñu naan actualité kenn saaga na sonko kenn genn kenn saaga na ki ki genn tok di wajag ci loolu mané len système bi lamb ji système la mais ba may tok di ka wax ñu bëré bëri déglu billahi wala tallahi ñu bëré bëri duñ ko laaj ñu bëré bëri duñ xam sa fi ngay waxé mais après di ngeen dima dem ba boy ko côté ba xam ne lii dëgg la ngay tok lélé ci yenn ci yenn ay nit yo xam dañ leen wowe kilifa nga ne ñii politicien la ñi dañ leen nax ñi dañ leen tek dil ci li nit ñi duñ la dégg naan la non lamb ju du ay sëriñ lamb ju du ay ki combat bi du ay ki combat bi lii la dem ngeen ma watal leen ko ci yàlla ma ne leen billaahi wala talaahi ma ne leen ma wax leen ko ñett yoon ma ne leen fekk yéen Sénégal seen xeex bi yéen a ngi toog naan sëriñ yi nañ génn kii nañ génn wallaahi paree goo leen bu nu paree ndaw nga xam ne yéen a am doole yéen ñi nga xam ne ay jeunes ngeen yéen a bëgg seen affaire yéen a jóg ko sans benn muy sama papa bokk ci sama yaay bokk ci ndax ñooñu xeexuñu seen xeex sama yaay xeexul xeex bi sama papa xeexul xeex bi mais man mii di ndaw ñëw ba toll ba sama xel egg si yenn yi bëy day weesu mboote nekkul ni sama papa day sol caaya rek ma ni damay sol damay sol lu ma neex loo xam ne lu yiw la di neex na ma lii araamul ma ko mais nekkul ni sama papa laay topp wala dara mais man damay ñaan pour aw gën a avancer sama papa yéen ndaw yi pare leen pour gën a ñu gën a avancer suñuy baay gën a avancer suñuy yaay te tamit dañ ko wane ndax fi ñu toll nii ñëw nañ ci 2024 bi ngeen xeex am loo xam ne loolu ngeen gëm kon ndaw yi divertir yi ba tey bu leen jàpp ne système dee na loolu ma xamal leen ko système du mës a dee loolu ngeen bàyyi ci xel système dañuy di xeex ak moom gis ngeen ni ñu doon toogee nii di xeex ak yéen kii bi noonu la ñuy toogaatee di continuer di xeex yéen ci ay système ay façon yeewu leen bu bu ñu divertir yeewu leen ngeen utiliser seen te xam ne système doo mës a naaw suñu xeex bi du mësa a naaw ku jàpp ku naaw jàpp ni xeex bi jeex na xeex bi gañe ngeen ko wallaahi boobu ngeen ko perte xool leen ci xaddaaf exemple xaddafi xaddafi dafa dem ba am doole xaddafi am lu mu bëgg moo ëpp doole fuuf jomaay moo ëpp doole fuuf sonko ëpp ñu xaalis seen dëkk dem ba kii tubaab bi fexe fexe fexe fexe ba ñëw ba yàqaat lépp lu xaddafi mës sa liggéey libyens yi après lañ comprendre kon nañu diisoo suñu biir di waxtaan suñu biir di déglu ñuy jar a déglu gàcce ngalaama ñu mel ni xalaat TV gàcce ngalaama tamit loo xam ne dañ koo soxla dama dégg keroog di leen Sénégal yi ndax ngeen loolu ndax journaliste Pape Alé Niang yéen mbokk Sénégal dama leen di laaj ndax pare ngeen pour jàppale journaliste Pape Alé Niang Pape Alé Niang ni doon toogee naan combat bi toll na foo xam ne il faut ñu nangu RTS il faut que ñu dem buñ ko demee ba jël ko rek combat na jeex na dee ko sóoraale tey Pape mi nga xamante ne si doon bonne volonté di xeex-xeexam tey dafa mérito waxuma leen journaliste de doon directeur RTS dafa mel damaa dégg Moula Morgan gis ko ci Facebook bi mu def ne Pape Alé Niang moom mérito doon. ki nga xamni ni moy nek directeur RTS ñu melni ni Pape ci duggu gi ci jom gi ci fulle gi ci bëgg réewam te kenn duko jënd te uti ci dara ñoñu tay ñoo mérito tay ñu jël pap Alé mi ñu defal ñuko directeur RTS mba paré ngeen mba yéen a ngi xol tamit di jéem a wax ci wax yi mel non yalla nako yalla def te tamit def ko mérito tëj ñen ko ngir combat bi def nañ ko lu lu nekk ci combat bi kon pap Alé ñun mom lañ bëgg ñu defal ñuko directeur RTS ñu mel non dafa am benn way bo xam dama doon waxtaan ak moom pour di leen ni système teewul sama benn xaritu policier mu ne ma ki nga xam nga lan dara dara comme te un na ñun ci dañuy continuer ci comme façon euh, groupe euh, affaire corruption affaire comme yi nga doon am ci pour loolu dañ koy continuer ne kon dëkk bi kon kon système mais loolu tey a loolu loo xamante ni sii ñoom Jomaay Fay liggéey yi nekk seen kanam ñoom Sonko liggéey yi nekk seen kanam muy ñi nga xam ne tey ay takk der lan ñoo xamante ni si système bi moo leen arrangé pour ñuy sàcc pour loo xamante ni si maanaam nekkul seen salaire rek moo leen doy mais nan leen mën a naxee nit ku war a jàpp tëj la ñu fexe ñëw nga géré sa xaalis ba dun la kii ay yeneen ak yeneen suñu côté douane yi suñu côté yu bëree bëri sa waay réew mi dañ ko war a defaraat réew mi dañ ko war a sangaat te pareegut pour ngeen xam ne réew mi combat bi na ci kanam du ci bëree bëri beneen bi tamit mu ñëw tamit ci jomaay Bassirou Jomaay man de sama bopp personnellement dama laa kontaan ci yow ci benn combat boo xam man maa gisal sama bopp paa waxi Sonko ndax ne ba nga jógee di xeex ci góor gi def nañ ci ay live mu ngi ci Facebook bi mi ngi ci page bi doo ORS ñu def ci live ñun tamit jàpp ci ay activistes yu bëree def ci live ndax yow yaa apporté combat boobu yow yaa tax yow yow ñaanu góor googu rek yow mën na la jàpp yow ba def la président nga fekk góor goo xam ni. kii ñuy wax baabakan Ngom doon koo xamante ni si nee na doomam tey dafay dafay woote pour ñu jox ko réew kooku noonu ci boppam moo fekk ay hectare jàmbur ay toolu jàmbur mu nangu ko ba mu ko nangoo pour jaay leen doole yow nekkoo dara defoo ko ngir xeexu Pastef mais nga def ko ngir xeex yërmande ngir xeexu kii nga xam ne ak néew di doole la tey ñu ñëw tey nar ko jaay doole nar a nangu alalam yow nga ñëw nga taxaw apporté combat bi boobu wallaahi Bassirou Diomaye ci Pastef laa bokkoon de ci cadre membre Pastef laa yoroon de mais wallaahi boobu laa naw. boobu laa la bëgg te boobu laay soog a xàmmee sa kanam ci xeexu nangaleer bi muy góor gi nga xamante si nangu nan ay toolam nga ñëw di ko xeexal kon ñun kon yaakaaru ni kon yow kon di nga nekk ki nga xamante ni si da ngay ñëw di dooleel ay kàccoor di dooleel ay caaxaankat kon yow ñun dëggu ñun gis nañ ko ci yow waaye ànd ak loolu lépp man waxee ma sama côté mais fi may waxee mooy li nga xam ne mooy li nekk mooy tey jomaay bu la nit ñi xamee président jomaay bu la nit bu la doomu aadama yi demee ba xam la ba nit ñi bàyyi la loxo yàlla mooy joxe nguur te moo koy far fu ko soob sa mbirum nguur gi dafa yàlla daf ci wane boppam di wane ni yàlla rek moom mooy yàlla yàlla mooy fal nguur tey juróom benn weer ci ginnaaw ku ñu taxawoon ñu ne ñu wala ci waa Pastef ña fa nekk ak ku mu mënta doon ñu ne la tey Diomaye Faye mooy nekk président Sénégal doo doo ko mës sa fukki sa téeméeri xel xalaatu ko ci ginnaaw Ousmane Sonko nga nekk tey jii yàlla ñëw tey jiital la def la nguur kon yàlla moom mooy jox nguur ku ko soob te kenn mënu ci dara kenn mënu ci tus Macky Sall ak xeex bi mu doon xeex yëpp ak lépp lu doon jéem yàlla rek fi nekk wallahi nga xool tey ni yàlla defee comme fir diggante Firawna ak Moussa rek comme ni ñu ko doon indee xoolal na moo yar Moussa. ba mu nee dafay doom góor bu juddu mu ray ko mu kii ko xoolal tey mi ngi noonu tey ndekete yoo jomaay fay sonko yow yaay yow di nga bokk sax moo xam xawma nu mu demee ak lu mu mënta tëdd lu mënta tëdd yow di nga dem tey ba nangu ba d'accord ba accepté beneen sonko ñëw koo xam ne ndax euh, sonko li muy xeex mooy projet bi li muy xeex mooy jàmmi Sénégal li muy xeex mooy mbuumu jàmbu dog li muy xeex mooy yiw li muy xeex mooy lu baax li muy xeex mooy ay qualité ay yëfi gor yëfi nit yëfi jom loolu nag mu nekk ci jomaay fa ñu indi fi waa jomaay yow tamit li nga si mel ko ba am ko wallahi yàlla lépp lu muy def dafa am sabab mu am ko jaar sonko la bu du sonko doo fal ndax yàlla lépp lu muy def rek yàlla mooy fal nguur di leer na pour ngeen dégg ma bu baax ñu bañ a changé wax ji yàlla mooy fal nguur mais yàlla lépp lu muy def rek dafa ami sab dafa am fu mu koy jaarale mais yàlla mi ngi jaarale sa nguur ci Ousmane Sonko bu Sonko newul woon joxoñ ne jomaay mooy Sonko Sonko mooy jomaay nit ñi duñ la fal loolu bul ko mës a fàtte ci diggante gor waxuma sa affaire politique wala dara mais ci diggante gor ak gor ci diggante nit ak nit yow tey ni nga mel Sonko la fi nga teg nii ñu baree bëri bari Sonko lañ ko gën a yéene ko jomaay pour ñu waxante dëgg te yàlla tax ci ni mu mel combat bi li mu am combat mais yàlla suñu borom moo la ko jagleel Sonko doon ndaanaan doon gor ñëw teg la ba tey Sonko président la Sonko nit ku am fulla la jomaay bul mës a ñàkkal solo Sonko boo ko ñàkkalee solo nga torox barki alquranu karim billahi lazi laa ilaha illa huwa ak weeru boo waree Sonko di ko gis soo ñàkkalee solo Sonko di nga ko gis barki alquran billahi lazi laa ilaha illa huwa loolu moom ma xamal la ko li nga mel nii Sonko la Sonko moo la fal boo faloo fii ci réew mi fii nga nekk président Sonko la Sonko moo tax ku toog naan la nit ki na xam la la fal ku toog naan la ay Sonko naan dañuy jéem a jaxase seen diggante naan la Sonko Sonko la bu du woon Sonko doo faru bu du woon Sonko kenn du la xam bu du woon ak Sonko doo doo doo nekk ci bopp réew bi kon Sonko la kon Sonko jox ko cër bu rëy rëy bu mag Sonko jox ko nag doon kii nga gën a respecté ci àdduna ginnaaw say ñaari waajur na doon ki nga gën a respecté def ko sa mag def ko sa conseil xam ni ku la bëgg la tey tamit fi nga toog nii sunk la Ousmane sunk la bu du woon ak Ousmane Sonko doo bu du woon ak Ousmane Sonko laa doo nekk président Diomaye Faye loolu nga bàyyi ci xel yow président Diomaye bàyyi ci xel bu baax a baax kon amul ay jaxase ku ñëw war a dem ba nga xam ni Sonko xam nga ni euh, set na wecc leer na naa ne kii ay nguur yitteelu ko ci ay naa naafalu nekk président yitteel ko li ko yitteel mooy defar réew ci yaakaar boobu Sonko am ci yow ba teg ko ci sa loxo ba toog ne Sonko ngay waaye bu rusloo Sonko kon système bi du la bàyyi nit ñi danañ dugg ci yow di jéem a yàq de di jéem a wax leen mais yaay président yaay njiit bul ñàkk fayda ndax Ousmane Sonko dégg naa mu wax ne comme nit ñi bu mu duggee seen diggante xaw ma lan ak lan ak lan nga ne yow nga ne ko nit nga boo xam ni maanaam mënoo ñàkk kersa nit euh, xaw ma dangaa dangaa kii affaire yooyu déedéet nit ku ñëw di la wax ci Sonko yaay président yaay jét mu doon ab yàqkat ab yàqkat ab saytaane kooku jaru ubbil bunt ab yàqkat saytaane bu ñëw naa la Sonko nga eh, tëjal sa làmmiñ sama digganteeg Sonko bu ci dugg sama digganteeg Sonko seen yoon nekku ci jomaay lii la la sant soo ko defee def nga li la war boo ko deful président Jomaay Fay defuloo li la war ñun nag danoo bokk ci kenn ci ñenn ñoo xam ne yaakaaruma la yow Jomaay Fay yaakaaruma la yow Ousmane Sonko Pastef leen awma tus lu ma billaahi wallaahi combat bi am nañ ci ntam li ma ci soxla woon mooy lii barke alxuraan du Sonko du Sénégal yaakaaruma pétrole yaakaaruma zircon yaakaaruma phosphate man li ma yaakaar ñaq Sénégal maa ngi fa nekk ay ati at di galère mosuma téye un million yu mat sëkk fii laa ko téewee ci Italie man Italie laa gën a gis sama bopp ka Sénégal uma fa tus mënuma musuma fa téye dara musuma fa denc dërëm fi maa ngi liggéey maa ngi sant yàlla borom bi subhanahu wa taala yaakaaruma sénégal ci la ma la laa nekk jéem a sama bopp jéem ñak sama ñak yaakaaruma seen jirko yaakaaruma seen pétrole bu la neexee këpp leen ko bu la neexee tour leen ko bu la neexee nan leen yaakaaruma kenn yaakaaruma fay bugguma falu tus tamit sénégal tous ba tay ji may wax giene wax ji may may wax ni utuma ci bës utuma ci ñaari salaamaaleykum gëroo leen ñu nekk gor sonko gënumaa gore ëppuma diñ jomaay président gënoo ma gore ëppoo ma diñ yaakaaruma la faale woon leen ñu ngi leen di jàppale nag incha allah nekk seen ginnaaw pour yàlla suñu borom defal leen ndam am nañ yaakaar ci yéen yéen bi nag diis na lool ngeen nekk ci ngeen doxal. kon Xalaat TV jërëjëf macha allah seen liggéey rafet na tamit ndax dégg naa seen wax ngeen koy wax tamit di wax ci côté comme jomaay pour système beeg yooyu am na yoo xam ne tamit buñ ko mayee ñun sénégalais yi mbokk sénégalais yi ndax pare ngeen ñun xam ngeen lu ñu soxla loolu. def naa ko ay live lu yàgg a yàgg wallaahi summa wallaahi summa summa wallaahi ma ne leen comme réew maanaam jiite bi dafa am lu ñu war a tënk président waruñu ko may loo xamante ni sii maanaam lu ko neex def bu ko neexee rey bu ko neexee tëj bu ko neexee sax dem ci ba ci digg tali sax tabax fa benn benn kii sax ni kenn dootu fa jaarati déedéet façon jiiteel boobu yàlla kase azza wa jalla moom moo koy jiitee meetu doomu aadama ndax nit ma kon danoo soxla kon lu mel ni ensemble ndax ensemble boo ko waxee sax yàq la ndax ensemble la fa nekkoon loolu du ensemble lu mel ni ensemble lañ soxla Touba am na boroom xam-xam yu fa nekk waxoon naa leen ko yàgg na ñoo xam ni xam nañ réew xàmme nan réew ràññe nañ kenn mënu leen nax woon am na ñu fa nekk ñu mel noonu. njaasaan am na ñu fa nekk ñu mel noonu li tax mu tudd ko ci tarixa yi xam naa ne ay nit tarixa ngeen tarixa ngeen gëm moo tax mu indil leen ko ci ci côté yi mais côté bépp kilifa loo xam ne nit fa la yaakaar yi lépp loo xam ne dina indi bodd konte wala waaso wala jaxase cim réew yooyu ngeen di tënk ngeen xool dëkk bu nekk tarixa bu nekk nit bu nekk ak gëm-gëm bu nekk bu nit gëm am na ñu fa dëgg foo dem am na ñu dëggu am na ñu xàmme am ñu ràññe am ñu jàng am ñoom kenn mënu leen nax ngeen utal ñu ñu mel noonu ngeen utal ñu lu mel ni ensemble bu ngeen naree voté benn loi ji dëkk bi ngeen nar fi voté loo xam ne kii na ngeen ñëw ngeen yóbbu ko foofu ay nitu dëgg laa leen wax nag ci ñu bokk ci Pastef bokk ci ñu dëgg comme tey exemple tey Cheikh Thioro Mbacké mën naa ko joxe exemple ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ay nitu dëggu am na fépp foo dem am na nitu dëggu ay nit yu gëm réew mi ñoo xam ne kenn du leen jënd ñoo xam ne ay nitu diñ leen dara jarul leen suñu jaay seenu ngor ñu mel noonu ngeen indi leen bu ngeen tegee dara càmbar ko ba nekkul ni jomaay moo naan sii rek affaire bi rek jàll déedéet da koy yóbbu foofu ci borom xel ñu teg ko càmbar ko tey danoo bëgg a tabaxub étage ab ab ab stade exemple stade stade boobu léegi indil leen ñu léegi yéen ñu càmbar ko léegi bu ñu ko càmbaree gars yi ne ah waa dëgg la kat stade kat baax na ndax kat fii kat ay kii ñu fi ñuy fubal mais maanaam amuñu stade wala dara wala ñu xool stade bi ne ah stade bi de boo xoolee fii ñu ngi fi bëgg a def stade mais amul hôpital am na ñoom bu nu bu nu feebaree bu ñuy faju ay sareetu wëtiir moo leen di jël di leen yóbbu ñuy jagar jagar yi di dee ci mbedd yi kon kat duñ tabax kon hôpital kon kon kon duñ tabax kon stade nañ ko def hôpital ñooñu bu ñu defee ba jég ko ñu xool la gën a jub léegi ñu déggoo ñu jébbal ko président président tam càmbar ci am ci wàll tamit après mu càmbar ci mu signé affaire bi soog a mais jékki-jékki rek def lu la neex nekk ci réew jékki-jékki benn loi boo am ko te wu dëkk yi léegi beneen bi si ñàkk fayda gi nga xam bu ñu ko ñàkk fayda Macky Sall mi dem na jeexal na moom lan lay ñëw di ñu indil ku ñu tegal ñun système lañ doon xeex ñun ñu bu leen foog ni dañuy xeex pour ay ay ay xeex yoo xam ne kii falu na jomaay mooy sunu président jomaay falu na alhamdulilah lépp ok déedéet ñu dañuy xeex dafa am principe bu ñuy xeex dafa am lu ñu bëgg ci réew mi jomaay nii bu ñëwee indiwu fi loolu barki alquraanu karim ay yet lan ko fekk bu fekkee sénégalais yi pare génn nag laay wax nag bu fi indee benn ay dof toflu wala dara yet lan ko fay fekkee moom jomaay fàqu yet fekk ko fa yëkkati ko sénégalais yi da ngeen war a mer guux affaire bu ñu kenn foweeti bu ñu kenn foweeti bu ñu kenn foweeti jomaay mii nag lenn nag laa leen xamal yéen sénégalais yi yéen activistes yi tamit ñu taxaw ba tey di ko défendre comme ni ko doon défendre képp koo xam ne yàqkat la indi loo xam ne ay waxi yàq la indi loo xam ne pour lëntëmal xel ni ngeen ko doon leeralee ci bëgg ban nekkul ci pouvoir nekkuñ ci dara kon instant yi lay toogee di dund watawaaso bi xaq watawaaso bi sabr ñëw leeral li nga xam ne ku bëgg a yàq deru jomaay wala bëgg kii ngeen génn défendre ko képp koo xam ne mi ngi bëgg a kii maanaam bëgg kii ngeen génn défendre ko ñu doxal liggéey réew mi réew mi ci liggéey lañ toll ci euh, jomaay ñun danoo xiif danoo mar hôpital ya yu baree bari yoo xam si daal mi ngi sunu kanam ñun yooyu mooy li nga xam ne moo nu gën a yitteel nga nekk ca bul topp wejeg wejeg yi am na ñu la waxal ci loo xam ne mais boo nekkul ci yoon wa rabbil kaaba ñu ñooy njëkk fàqu yat tulli la samay wax du neex na ngeen baal ma àq nag ndax man euh, daanaka man mooy loolu li ma li ma leen wax rek wallaay yaakaaruma leen wallaahi yaakaar wallaahi yaakaar nga leen soxlawu ma xamante ak Jomaay Fay soxlawu ma xamante usmaan Sonko ba tey jii may wax yéen ba sànq ba suba waxuma pour comme ñii dem nañ tey ba yàlla def nekk nañ kii wala dara mais soxlawu ma leen xam lijjantiwu ma leen man Sénégal moo ma yitteel Sénégal gu baax Sénégal gu jag ñun ci foofu lañ taxawee yàlla na leen yàlla sàmm Sonko am nañ yaakaar ci yéen Jomaay am nañ yaakaar ci yéen beneen bi tamit. télé bi nga xamni si ñu ngi koy waxee tamit muy ORS sénégalais nañ bayyi nafiq sénégalais nañ dëgg sénégalais nanu nan xam lu lu logique nañuy def lo xamni ngir yalla di di di di àtte dëgg ta yalla tax ORS bi Ousmane Sonko da nga wara tuddu turam Jomay Fay da nga wara tuddu turam ndax gën nga Sonko Adji Sarr wallahi bokku na ci li la sauvé ORS bi seenu seenu Facebook bi bokku na ci seenu YouTube ORS bi bokku na ci ci li la xam mo la boo demee tey jomaay ba am yenn carte yi wala yenn kii ORS yi bokk na ci kon ñu mel ni o dama tudd ORS rek ndax fii laay waxee fii laay kiwee ndax man yàgg naa am lu ma métti ma am omo fu ma koy jooyee fii laay ñëw man ma jooy ko ci ban jàppee aj Ousmane ko tere nga maa nelaw guddi tere ngaa nelaw samay morom ñu baree bari nag ñoo xam ne yow tere nga leen nelaw ñun fii lañ toogan toogee tey fii di ko fi jooy kon lii Walfadjri ëpp ko doole TFM ëpp ko doole yeneen télé yi gën dëgg yëpp ndax tele yu baree bari wal fajiri sax bokku ci waaye tele yu bëree bëri liñ fi nekkaloon mooy di suuxal askan wi di fen askan wi di nax askan bi kon fii kon bokk ci télé yam dañ doon wax dëgg kon bokk nañ ko jëmbal Assane Diagne yàlla na la borom bi subhanahu defal ba sa lii doon télé yow xeexkat nga jàmbaar nga kuy lim patriote di lim xeexkat ci Sénégal nan la ci boole képp kuy lim ndaanaan di lim gor nan la ci boole yow bokk nga ci nga xam ne xeex nga ba buumug jaam dog te am nañ ci yaakaar buumug jaam dana dog incha allah ndax ñu ngi ci tànk yi mais bokk nga ci ñu ci xeex bëri na ay seen YouTube ak ay ñeneen ak ñeneen yéen mbokk patriote yi ñooñu dooleel leen seen YouTube yooyu man nag awma seen YouTube awma dara loo xamante ni si lu ma yor la pour yaakaar ci dara ndax tem ngeen wax nit kii day tegtal pour boppam lay xeexal wala dara man seen xeex bi yaakaaruma ci dara seen YouTube ba nga xam ne man yor naa ko wallahi monétiser xaw ma monétiser xaw ma nu koy waxee defuma defuma ci loo xam ne pour benn dërëm da cay génn wa rabbil kaaba dañ ko def mbaayal ko noonu ngir yàlla te ci diina lay wax kon mooy loolu mbokk sénégalais yi ubbi seen xel ñu ànd fulla ànd ak fayda incha allahu rabbi te xam ni affaire bi système bi daal jeexagut sonko mooy jomaay jomaay moom mooy sonko ñun gëm nañ ko kon gën leen a dëggal loolu jomaay bul fàtte ñu ngi koy sàkku ci yow di ko ñaan ci yow bul fàtte mukk mukk mukk lu yow jomaay jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay ñun de gëm nañ ko ndax sonko xam nañ tam du dof sonko ku dégg ay waxam ku apporté xeex bi yëpp ci Sénégal jàmbaar booy lim ci Afrique nga lim ko kooku du tànn cuuni du dem kon yow jàppane xel bi ngay jaay Sonko xelam multiplier na sama xel moom ëpp xel fuuf moom ma gën a muus fuuf macha allah yàlla ko yàlla sàmm gën ma jàmbaare teg kon man ni may toogee di analyse jàppane analyse yu Sonko moo gën a pertinent kon bu demee ba tànn jomaay fay ko juumut kon nañ leen bàyyi ñu doxal nañ bañ a déglu seytaane yi yéen ndaw yi fi ñu toll nii lu dul yéen waroo waroo leen ñàkk fayda sax di déglu sax ay journal yi ñëw di indil ay Sonko ak Diomaye ak danoo xaw a ay kiiw ak kii dina leen indil lu ne ay xibaaru fen yu nekk jàppaleen di ngeen ko dégg yéen leer na nañ dégg naa Fatouma Tampi xawma lan génn na ne moom da doon fen li mu doon wax da doon fen ñëpp ñi doon fen yëpp xam na li doon wax yi doon wax pour aral pour fen pour kii dëgg-dëgg yàlla atte leen yàlla leeral mbir bi mu leer nañ léegi kon yéen yéen ndaw ñi li ma leen xamal bu leen ñàkk fay di perdre seen da ngeen bëgg a lekk ndaw yi da ngeen bëgg a lekk fi mu toll nii état boobu ngeen toll da ngeen bëgg a lekk dangeen bëgg a naan da ngeen bëgg a xëy na xëy mi njàppani nan ubbi buntub liggéey ñu liggéey nan ubbi tool yi nan ubbi lépp pour yéen ndaw ñi ngeen liggéey beneen bi tam ma xamal leen ko gis ngeen dafa am benn waaye moo doon déglu <laughs> daf ma ay ree trop mu ne ma léegi Sonko bu taxee fii la nekk ci kaaw bi fii kaaw bi fii sa waay nekk fi nga xam ne sa weer mun nga fa am sa million doué cento euro wala sa benn affaire boobu roog ab Sénégal nekk fi naan ma bu Sonko falee wala kii man incha allah damay ñibbi damay tem léegi investir ma ne ko sa li nga yaakaar dama ni la Amérique am na ñoo xam ne Amérique gële mu ëpp xaalis téeméer yoo Sénégal am na ñuy fanaan ci mbedd Amérique am na ñoo xam ne bu nu añee duñ reer yoruñu ñaari salaamaaleykum lu suukar màdd xaalis da nga koy ñàq da koy liggéey bu leen mukk di di kal ci ay Sonko wala kal ci kii da ngeen liggéey dem leen liggéey yéen ndaw ngeen gëm liggéey mais bu leen jàpp ay pétrole ñëw na suuf ñëw wala leen toog tojoo leen seen xutu xatak demoo leen liggéey wala benn affaire di yaakaar ay kii ko fi da ngay dee te doo am tus ci te booba ngay gën a torox barke alxuraanu karim loolu ma xamal leen affaire bi la lan wax liggéey nan ubbi buntu liggéey bu ubbee buntu liggéey tool am na man naa dem tool dem joobi la ma doon joob ca laay continuer di ci gën a góorgóorlu xool sama joob na mu yokkoo réew ànd xàccandoo dóorandoo ni leen ko Sonko waxee ànd xàccandoo dóorandoo président buy liggéey di def lenn yow da ngay liggéey di ko jàppale ku ci nekk di jéem a def sa waar xool na ngay tojee sa bopp kaña jéem leen toj seen bopp kaña liggéey leen ku liggéeyul doo fi am dara booy boobu pétrole bi di tuuru laax ñu koy def ci ay potu ndaal war rabbil kaaba ku liggéeyul ñaq ci pot pétrole bi doo ci jariñ suuf si doo ci jariñu gaz bi doo ci jariñu dem leen liggéey nañu gëm job ñun suñu problème instant bi yéen ndaw ñi njàng mi doxul napp gi doxul nan lañ mën a def ba yi pour nappkat ba a dem géej dem napp ji gis boppam gis ci boppam menuisier bi nan la mën a def ba mën a xool ay bantam mën cee gis boppam tailleur bi nan la mën a def ba mën cee génn mën ci gis boppam yéen foofu ngeen toll pour liggéeyal seen bopp mais ku leen indi yeneen wax wejeg wejeg wejeg yooyu paase wejeg wejeg yooyu ñu leen bëgg indil di leen toog di leen indil ay affaire kii ay di leen divertir ci ay kii leen ñun li ñu diggante gars yi mooy la ñoom ko réew mi dina dox danañ liggéey danañ kii léegi nañ ubbi buntu liggéey ñun lool lañ am ñii lool lañ ñu ameel nañ leen bàyyi ñu doxal ñu liggéey xool léegi nan lay def pour ñu mën a xëy mën a liggéey foofu lañ toll mais tolluñ ci comme li yaakaar ko fi yaakaar ne fii nii sa waay pétrole bi bu wàccee man tedd tedd naa Sénégal moo baxee barki alxuraan doo am tous doo am ñaari salaamaaleykum doo am dërëm ci torox ngay dee نانو تاتش نو خوت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك